moo tax yow jigéenu jullit bi nga war a góorlu bu baax doon borom kersa am na ci soxna yi ñoo xam ne xool tey seen moroomi jigéen sax daf leen a jafe famaa baalu nag góoru jàmbur waaye tey am na ci ñoo xam ne day lu ñuy faral di wax ne xool rek lañuy def ak noppalu ba ci ñi nga xam ne sax dañuy woote woo góorlu ba ci ñi nga xam ne tey ñooy góor góorlu yow da gis koo xam ne dafay niit góoru jàmbur ci kaw ba ci suuf ba yow dangay jàpp ne kii dañ kaa yónni war a daa am lu mu war a note doo xam ban la ci kon bu ko defee ñu góorgóorluwaat moytu lépp loo xam ne sunu diine daf ñu koo tere nañu góor góorgóorluwaat bu baax da ngay gis koo xam ne mook xaritam ñoo nekk waaye def li nga xam ne boroomam subhaanahu wa taala daf ko tere indil na ko fitna indil na ko mbokk jullitam ndax na ku xoolul dara doo gis dara de waaye ku xool dara faaw nga gis dara te ab xol suy góorgóorlu sax bu jéemu tayar boppam mu topp ca bakkanam am lam ko tàbbal waxatumaat nag boroom xol bu sàggan yow jigéenu jàmbur góoru jàmbur ngay xool boo moytuwul sax mu doon góoru jàmbur boo xam ne sa boroom këru xarit la mu yóbbee la gis loo warta gis ay ñaata nit tey ñu dem ba nga xam ne dinañ ci yàq seen sëyu xarit ngir fitnawu ba ñu fitnawu ci góoru jàmbur ñu topp ca li nga xamante ne moom mooy seeni bakken ñaata tey ci ay fitna lan moo leen ko yóbbee tàbbi ca la nga xam ne seen borom moo leen ko tere woon kon di wax ne ngalawaay nañu góorgóorlu bu baax la ca gën a doy waar nag te gën caa soofati mooy léeg-léeg nga gis jigéenu jàmbur ak góoru jàmbur am benn relation boo xam ne danga naan nii lan moo leen ko may xam ngeen ne am na yoo xam ne dëgg-dëgg sàggan ci diine fa la mën a yem te am na ci ñoo xam ne yow mi jéem a góorgóorlu ci éviter ak daw ak moytu ngir góor góorlu ca la nga xam ne moom la la borom bi subhaanahu wa taala sant dañu lay jàppeeku soof waaye ndokk nanga demee lu ma am jël lu ma ca góobe gar ko ne sama digganteek sama borom moom a gënal lu nekk nag dinañ la ko àttee daa soof ak daa daa yëg boppam ak nangam ak nangam yow loo am baax na ndax am na ñoo xam ne moom problème mu ñoom baaxuñu waaye ñoom it bëgguñu ku baax ñoom duñu dem gaa duñu jëfe lenn waaye ñoom yemuñu ca ñàkk dem nga ñuy ñàkka dem waaye dañuy bëgg yow itam nga toog ak ñoom doo dem chaque jour ngeen di bokk niveau chaque jour ngeen di bokk mustawa loolu nag ba kañ bu ko defee nañu góor góorgóorluwaat xëy na nekk nañ ci àddina boo xam ne yow jigéenu jullit bi loo daw daw loo éviter éviter léeg am yoo xam ne mënta ñàkk muy wàllu jëflante ndaxte boo moytuwul ki nga xamante ne yaa ngi jëndanteeg moom di jaayanteeg moom góoru jàmbur lay doon boo moytuwul docteur ba lay faj dem nga ba nga xamante ne daruuri la góoru jàmbur lay doon ak yeneen ak yeneen yoo xam ne xàmmee ga xoolub xàmmee ga munu caa ñàkk waaye bu sa soxla weesoo xool nga bum la amalati li nga xamante ne moom mooy yitte mbaa te man dey dama jàpp ne am na yoo xam ne amul sens doo ko def ba fayeeku ca te liñ la tere liñ la tere rek la du la neen te góor na mu bindoo ak jigéen na mu bindoo bokkul am na yoo xam ne yow jigéen ci yow la gën a yomb kon di wax ne góor góorlul bu baax ci sàmm say bët góor góorlul nga nekk borom kersa ndax am na yenn xool yu rëy yoo xam ne nag borom kersa mënu ko de borom kersa mënu ko bu ko defee nga góor góorgóorlu bu baax bul bañ ku la jam bul bañ ku la xas bul bañ ku la xarab na nga góorlu nga doon ko sàmm ci lépp na nga góorlu nga doon koo xam ne sa digganteek sa boroom ci sàmm ay bëgg-bëggam ak i santaaneem ci yow moo la gën a lu mu mënti doon kon di wax ne na nga bàyyee xel yow jigéenu jullit bi sa diine daf la tere nga doon koo xam ne dangay xool góoru jàmbur waaye rawatina nag xoolu bànneexu xool goo xam ne moom amoo ca benn njariñ maanaam njariñ nga mooy lan mooy topp sa bakkan njariñ ja moom mooy tàmm xool rek di ko def njariñ ja mooy am bëgg-bëgg xool góoru jàmbur mu tàbbal la ci lan nga def li nga xam ne moom la la borom bi subhaanahu tere kon ñu góorgóorluwaat bu baax di ñaan borom bi subhaanahu mu defal ñu taw tawfiiqu la mu gërëm waaye mu kàttanal ñu te dooleel ñu ba lépp loo xam ne daf ko tere ñu bàyyi ko ngir moom ñu doon ñoo xam ne lu ñu mën a am dañ koy am waaye lu ñu mën a ñàkk moom borom bi subhaanahu wa taala dañ koy am kon di wax ne ñu góor góorgóorluwaat bu baax a baax a baax a baax damay wax ne allaaxira day diina ju set ju sell moom rek nga fay yóbbu mu doon loo xam ne dafa lay jariñ kon bu ko defee mbokk yi incha allah fii lañuy ñuy yëkkati sunu jotaay ñu nekkoon di waxtaan ak yéen salaasuuna nahyan shar'iyan lin nisaa muy fanweeri mbir yi nga xam ne dafa bokk ci sharia lu mu tere jigéenu jullit mu doon koo xam ne daf koy daal di taxawee ñu ngi baalu àq di baal ñëpp di ñaan borom bi subhaanahu wa lépp lu ciy njuumte lépp lu ciy rëcc-rëcc ñun ñëpp mu bokk ñoo jéggal inchaa allah jërë ngeen jëf ñi ngi leen di jox dig daje ci sunu beneen jotaay inchaa allah asalaamu aleykum wa wa barakaatu. يغفر لي ويرزقني ويعطيني سألت الله سألت الله